mi ngi noonu Assane sëñ Fallou mi ngi may wax ni ma sax waxtu wi jeex na tàkk tàkk fukki minute daal laa ko ñaanaat bu ko defee ñu dugal ci liñ ci dugal ndax il faut imam euh, fàttali ñu fàttali ñu tuuti ni xeex bi jëm na ci ay théâtre yu fi doon kii di yàq ay xale fecc mu ñaaw meek wax ju ñaaw jekk toog di def sa émission di wax wax ju ñaaw ba ci ñoom ñii sax euh, Assane boo toogoon suba suba. Mhm. di jaay ay garab garab gi maye kàttan bokk ca. am na noo koy waxee jigéen ñi ñu ko eh, kii na mooy boobu nga ciy gis. Hmm. avertissement Jamra ki avertir na ko. Ah, avertir na boo demee ci seen page Facebook am na ci texte boo xam ne hmm. avertir nañ ko mooy ndaw soos di wax di tudd affaire bi. Hmm. Eh, demal ci benn waaye may gis muy toog benn xale bu jigéen moom la jàngaleen sëy waaw yooyu yëpp léegi yow boo ci gisati yow boo ci gisati. ma yónnee la yónnee signalé ko ko rek. waaw <laughs> léegi nag kon ñu mujjee ci bu ñu jugee ci vidéo bi moo ñuy may ñu mën a dugg ci loolu imam defal ñu benn rappel ci defe naa fukki minute rek lañu suñu fàllu may xale bi moom la baayam daan wax jigéen ñi yëkkati leen may xool seeni pointure moom nag doom ji bi mu ñëwee moom tudd na pointure wa di def lu ñaaw ci réseaux sociaux yi li tax ma indi ko fii nag dama leen koy gaaral ñu bokk ko xoolandoo dégloondoo ko ñu jéggalu nag ci kàddu yi li ngeen di dégg ñu koy dégg ñu dellu si waat sañu fàllu voilà imam mi ngi noonu bëgguñu si sax dawal lu bari wax ji ñaaw ba àgg ci ñaaw jàkkaarloog jigéen joo xam ni mm, dem nga ba tudd li nga xam ni ñu ngi koy rafetal sax naan awra te du baatu sax olof mais rafetal ko moo tax ñu koy waxee noonu ñu mel ni xale bi bari nañ ci penc mi ndax yéen a ngi bàyyi xel ku mel ni kii wala euh, lii gisagu leen ko woon. Euh, yàlla dafa dogal xale yi. doomu sekaale seka waykat. ak ku doomu ku mu mën a doon kay. <laughs> boo sax doo nekk doomu benn la. Mm-hmm. loi moom mm-hmm. ñëpp la fi nekkal. maa ngi la doon fàttali keroog bi mu fi mujjee recevoir. jàmmarloo bi ñu doon jàmmarloo xale yooyu jóg fas fit bëgg fi indi lu fi mësul am ci histoire ci taarixu audiovisuel. film pornographie. nga xam ne niveau bañ ko yóbbu woon nigériens yi sax egguñu foofu. jigéen ju ñu futti ni kon ndeyam jure. wallaay wallaay di am ay scène érotique au lit. may fàttali ne ba ñu dànkaafoo ñu tànqam lu ñu parce que moo santaane dànkaafu. wa amruhum shura baynahum yéen jaam yi da leen di farataal shura shura tubaab di ko concertation wala di ko wax diisoo ba ñu dànkaa foofu faalewuñu ñu jël li ñu yoon may parce que ñun ci penc mi la ñu bokk maa ngi gërëm le commissaire Ali Kandé bu cybercriminalité ñu jébbal ko plainte jël beneen plainte bi jox ko procureur procureur woo commissaire Ali Kandé ne ko ñoom Jamra day indi nañ fi li mu ne waa jox nañ ma copie bi waaw mu ne ko def ci sa liggéey ndax xam nga plainte procureur faalewul plant ci waxin commissaire euh, cybercriminalité Ali Kandé faalewul plainte ci waxin ndax plainte ab kayit la rek mën naa mere sama euh, mm. doomu bàjjen bi ki nga xam ne moom rek laa yab mm. euh, dégg nga kontaanuma ci benn émission bu mu def rek ma xëy rek bind trois pages yu plainte xas ko sosol ko ratatatatat moo tax procureur kenn mënu koo nax ci yooyu mm. xam nga lu mu lay wax. Hmm. loolu saa yi di wax rek dafa ne waaw wax nga lii ak lii léegi ana dalil yi. waaw preuve. Hmm. alors ma daal di indi dalil yëpp jox ko. Hmm. alors ci saa si nag xale yi yëg ne jamono dóor na plainte ñu daw dem nga paru waaye ay xale lañ ndeysaan ñi daal di ubbi seen téléphone portable xam nga téléphone portable day am. Euh, GPS localisation ñu localiser leen fekk leen fa ne leen fa niip alors léegi interrogatoire bi. après benn commissaire bu ma waxtaanal mu mu nettali ma mais ay ree la ma def ma ne quoi bi ngeen leen di interroger nu mu demee mu ne ñun daal dañu mujjee yërëm xale yi ne na benn benn kenn ci ñoom defe naa mooy réalisateur bi ne ko waaye lii ngeen def mosul am Sénégal jàpp jigéen futti ko ni koy ndeyam juree ngeen yéeg ci lal bi di def loo xam ne nigériens yi sax jomb nañ ko def. Mhm. waaw lu tax ngeen def loolu. film pornographique mosu fi am lu waral ngeen def lu ñaaw lii. Mhm. xam nga xale bi ko tontu di wokk ndoom li naan ko non doon def bad buzz quoi. bad buzz waaye ñu ne ko luy bad buzz mu ne maanaam bu ñuy def bande annonce dégg nga buy jàll ci YouTube. Hmm. Euh, comme que dañ koy monétiser. waaw nombre de vues yi ñu ci am luñ ci foraatu ci xaalis rek ñu korkoral ko pour financer suñu série ma daal di leen yërëm ndekete hmm. loolu def lu bon ju taxu leen ko def. Hmm. dañ ko def pour am ci xaalis. alors mujj gi daal procureur moom amu ci benn masla euh, ñu tëj leen 17 jours de détention préventive. ba mu jeexee ñu àtte leen. tribunal euh, euh, euh, flagrant délit fëgg leen deux ans de prison avec sursis pour réalisateur bi ak producteur bi. Mhm. six mois de prison avec sursis. Mhm. pour acteurs yi ak actrices yi. Mhm. alors li tax ma nekk loolu. ci laa profité woon am waxtaan ak le commissaire Ali Kandé waxtaan boo xam ne tontu na ci li nga expliqué léegi. comme taaru xale bi voilà. ma ne commissaire. ñun dañu doon lëx-lëx yi ci suñuy texte ñu gis am na loi bu fi ne laajul voté waat hmm. assemblée voté na ko waaye Sénégal seen manin mooy dañuy voté loi ba mu taaru jàpp ko rek wékk ko fenn mu nekk euh, meuble hmm. kon une loi n'est pas faite pour servir de décor juridique hmm. elle est faite pour être appliquée alors effectivement mu ne ma ban loi la ma ne ko c'est la du janvier la loi bi wax dama ko jàng par cœur loi bi nee na sanctionné na. képp koo xam ne utiliser nga un moyen électronique quelconque. di diffuser. sous forme de photo. de son. et de vidéo. des images benn qui portent atteinte à nos bonnes mœurs. qui mettent en danger la santé mentale et morale des enfants et qui euh, portent à l'image de la femme. alors ma ne ko kon ñii lii ñu def matal na charte yëpp mhm. mu ne waaw moo tax euh, ils sont en prison voilà ma ne ko léegi nag dama lay ñaan boo mënee communiquer mhm. nit ñi xam ne tooñ ba pare rëcc yàq ba pare daw dugg ci penc mi xëpp fi ay nefere mhm. ñëpp taf seen bakket dangeen ngeen ñoom ñoo xam ne lii moo leen di xaar mu ne ah yéen de yéen nekk organisation non gouvernementale xëy na sensibilisation bi yéen la waaye répression bi ñun la ñu daal di waxtaan kaf ba tàggoo kon dama la wax loolu pour dalal sa xel nii. Mhm. ñi def lii. waaw mënuñu jaaxal nit ñi de. Mhm. maa ngi profité ci plateau soy bu bii. Mhm. ak ci eh, bañ nañ ba tuddee ko ci ngeen bokk. ma di ci profité yëgal leen nii. jàpp leen émission bi comme dànkaafu. xam nañ foo leen ne. la loi 2008 11. du 25 janvier 2008. le commissaire de la cybercriminalité bu may mu may dégg Ali xam na ne Jamra jàmmaarloo na fi ak ñu bari ba defe naa li tooy ci ñoom la jóge mhm. yéen ay magum jëmm ngeen nag bàyyi leen ko. Mhm. loolu rek laa leen mën a wax. Mhm. bu dul loolu balaa semaine bi jeex di ngeen ñu dégg. foofu laa mën a yem. maa ngi ak seen TikTok maa ngi ak seen i compte. waaw vidéo bu fa yees danaa ko télécharger jox la. waaw ndax ndax xam nga li ma li ma bëgg ngeen comprendre. du question du question. loolu bu dafa bëgg fitnaal kii. non wax ji dafa ñaaw wala Baye Assane Mesere. dañu dañu soxor. du loolu. suñuy doom yàlla yàlla dafa dogal. wallaay penc mi. Hmm. kenn ëppalewu fi kenn. Ah, waaw suñu xale yi li ñu doon doon ay penc penc cosaanu penc bi lan la. Hmm. ñun ñi ñëpp suñu ay maam. Hmm. sa jamono bu ñu waree waxtaan lu itteel askan wi lan nga daan wax surtout ñun ñi nga xam ne ay tuut tànk lañ day na ah, mag ñaa nga sa taatu garabu benteñe ba mm-hmm. wala bu àjjuma de ñu nga sa suufu garabu guy ga ndax eh, am na sëy buy bëgg a tas diggante diw ak diw eh, dañ leen foo a woo defaraat diggante bi wala am na waasoo sàngam ak waasoo sàngam réeroo am na te bugguñu mbir yi law mm-hmm. penc mi fa lañ daan régler lépp waaye penc mi dafa amoon gardien mm-hmm. boo ñëw ne danga nga bëgg a bokk ci waxtaanu penc mi dafa am âge boo war a am soo paree nañu wax la sart yi sa yi fii chaque buñ ñu julee takkusaan toujours fii la ñuy daje ba timis voilà sart mooy kenn du fi ñàkki teggin mag kenn du fi saaga kenn du fi jëw kenn du fi nangam kenn du fi nangam d'accord nga nga d'accord nga bokk ci penc mi trois cents ans nag penc yooyu dafa moderniser Facebook penc la Instagram penc la YouTube penc la TikTok penc la macha allah te boo ko xoolee nasaraan yi ko créé donte la yëgoo ñoon ak suñuy maam ñoom itam dañu am gardien dëgg la mu di booy bindu yéen ñëpp jaar ngeen ci booy bindu TikTok wala Instagram dañ lay laaj ay tur sant nangam nangam ba pare nag wax la lu ñuy tuddee les règles de la communauté. moom laa doon wax mais la penc mi <laughs> lii lay bañ. fii kenn du fi jaay arme. Mhm. kenn du fi euh, euh, publicité euh, drop mhm. et cetera ba mu jeex. daal di am ñaari bouton. Mhm. ay agri wala ay not agri. waaw d' accord na wala d' accord ma boo d' accordul nga génn boo nee d' accord nga rek tënk na la. alors moo tax nag. Eh, loolu waa cybercriminalité dañ ciy sukkandiku. bu ñu jógee war a képp ab tooñkat. parce que penc mi jeexal na wax boo ne penc mi mooy ñëpp ko bokk moo tax tubaab nee na votre liberté s'arrête là où commence des autres. waaye doone man li ma eh, penc mi may ci sañ-sañ danaa ko jël la ma bokk ak nit ñi danaa ko dëggaate nappaay ba te maa tey. non mënoo muus ba coow du la topp. macha allah. voilà kon sooy bu mën naa tàggoo. waaw moom kay daanaka. voilà bu ko defee kon euh, di leen gërëm di leen sant ndax wax dëgg yàlla ni ngeen ma yaatale tey defe naa <laughs> gëj naa am. waaye nag euh, mënu leen ci dara man mënu ci dara mm. actualité bi moo jax. Euh, ay assise beeg. Jean-Luc Jean nijaay Jean-Luc <laughs> jaaroon na fekk <laughs> Charles Michel ak ah. les assises de la justice mm. ak mafia bi bëgg a nax jomaay pour bëgg a daganal noo ko yàmba mm-hmm. ak saagakat yi Sonko yemale te encore une fois la ciy félicité bul dellu ginnaaw mm-hmm. surtout ñi si diaspora bi laqatu ci seen i smartphone di saaga kilifa yi. waaw saaga kat am na ko xam ne mu toog di wax. aw fotoom rek gis nga kooku. amul kenn ku ma sa gis mu toog nii di wax di articuler. Mm-hmm. di di di def ay gestes. déedéet fi nga xamee lâchetéem mm-hmm. day fab photo bu ne bu fix laqatu ci ginnaaw. Mm-hmm. di sos di kàcc. di yàq deru gor yi. moom mii sosal na ko di asal mi foofu ngay xamee lâche. xëy na dugg ci ay mbiram te xamul ko dara. asal foofu toog. man dama doon sosal ba pare lëkkaloo fa ak ay góor jigéen. <laughs> ñu ma melokaan gis benn góor jigéen bi ne xool ko pa jamra bi kanamam gu wow gi <laughs> beneen góor jigéen bi ki nga xam ne dafa xeesal ba weex tàll daal ne xool ko bëtam yi mel ni bëtu looy beneen góor jigéen bi ki xob bi tuñ bi tey peinture karaw gi daal di xool ko buy wax di di tourner bët yi mel ni si ndax bu biir <laughs> dinañu yàgg a kanam. mën a ndax duñu lekk. <laughs> wallaay dëgg la dinañu yàgg am bët yu xóotu. wallaay ndax taluñu lekk ñu naan. noppaloo wallaay ndax <laughs> rëbb leen. wallaay seen yi laaf. dëgg la moo ñu gënal kaay lekk kaay naan. dëgg la ndax euh, mbugal yàlla di ngeen bëgg wàcc si ñu kaw te duñ ko nangu. ndeysaan dëgg la alors kon nag. Euh, jërëjëf euh, dinaa jël ci sama carte bi. di wax waaw dinaa euh, dinaa la euh, kii kii Souaybou ah. kii Baye San ah. dama bëgg adhésion wu euh, Cheikh bu mm-hmm. ngeen def ko événement mm-hmm. waaw kartam mm-hmm. du carte simple xam nga xam nga ban carte laa koy jox même degré que bu Abbé sec xam nga Abbé Jacques ñu bari dañuy fàttali ne membre d'honneur la maa ngi ko décoré ba ñu jógee kër Ousmane Sonko. ba coow li sonk aji saar jibee mhm. ñu àndoon fa noonu def tànku di jàmm. taxawaayam dafa rafet ba ba mu génnee. Mhm. Jamra ci la ko solal kart membre d'honneur. Mhm. ñett ko am Sénégal. abbé Jacques Seck. imaam Cheikh Tidiane Sy Al Amin. ndeysaan moo jiite CUDIS. le cadre unitaire de l'islam ñetteel ba di jëmm ji. moo tax bu ñu ko koy jox. loolu événement lay doon dama bëgg yow nga ñëw. non loolu kay médiatiser ko. dañuy ànd ak suñu fàllu gumbale sax ma boobaa. ma discours. mu discours ñu solo ko ko. incha ñu xam ne léegi nag moom mooy suñu sentinelle vigilante. Mm-hmm. yorewul yat yorewul dara. waaye dànkaafu lay lay def. ah attention. Mm-hmm. voilà kon nag euh, cheikh bi ma fàttali rek euh, Jamra. Mm-hmm. wooteewuñu daayira. wootewuñu tarixa ñun ay ndongo la ñuy askanoo ci këru diine Touba Tivaouane Ndiassane Thiénaba Niassène Medina Baye Layène ak église bi. Mhm. wax naa ne ab membre d'honneur la ba ko journaliste laajee mu ne mais yéen valeurs yi ngeen di défendre. Mhm. ñun euh, chrétiens yi moom la ñuy défendre. Mhm. donte le bokk ñu diine. alors donc ay ndongo yu daje la. ittewoo dara. mooy sàmm ndono li fi mag ñu baax ñu bàyyi. alhamdulilah ndax mag ñu baax ñi. ku ci nekk ci ñoom bi ngay wuti laata wi ji sa borom barsax jëf nga bàyyi fi wax nga bàyyi fii bind nga bàyyi fi kon bu ñu jógee ne ah mag ñi war nañ leen fay de loolu waxi taalibe bu xër la rek ndax koo xam ne moo la xamal xaala laahu yàlla nee na xaala rasulullah yonent bi nee na génn la ci lëndëmaayu jahiliya indi la ci leeru siraatul mustaqiim boo doon def yow bu weer bu jot boole kook sa salaire ak salaire u Suwaybu ak salaire u Baye Assane sama bos ak bu saa ñu boole ci conteneur or ak jama lool yëpp bu ñu ko defoon di ko jox mag ñu baax ñi hmm. du tax ñu dab boru xaalalaahu xaala rasulullah comme que ma ñu leen fay bor lan hmm. lan moo fi sës hmm. delloo leen njukkal delloo njukkal mooy lan lii ñuy def nii mooy joxante loxo séq ndono li ngir sàmm ko aar ko ba ku ko bëgg a xajamal mbaa nga bëgg ci xëpp suuf mm. ak koo mën a doon mm. lobby borom ñaari tur mm. lobby LGBT lobby faux oustas yi mbubboo diine ji tey business ak koo mën a doon ñu jàmmaarloo ak yow mu jaral ñu lu ne yal na yàlla def jàmm ci réew mi yal na ah, yàlla dàqal Sénégal seytaane suñu kilifa diine yi yal na yàlla dégg nga ñor di fan. te ah. toppal ci wér. amiin yàlla def jàmm ci réew mi te ñu Sénégal fu yàq yeegul. amiin wasalaamaaleykum xam naa tëj nga mais yow gis nañu ne kilifa yi diine yi maam tarixa yi ñëpp nga maîtriser. kilifa yi diine yi am diine ba si chrétiens yi wax nga ko noonu te président Diomaye gis nañu ni dafa bëggoon a fal ñoo xam koo xamante ni mooy yore loolu muy dem si bisi diine yeeg yooyu koo xam ne mooy mooy dox loolu daal hmm. est-ce que bu ñu la ko joxoon du gën a yomb <laughs> mooy dugal <laughs> tontu ma gis saabu buy fóot boppam de bu ñu la ko joxoon laan est-ce que du gën a yomb xam nga lii rek bu subaa booy Pastef yi naan ah pa jamra bi feeñ na nag rek ne coow lii yëpp maanaam feeñ moo xam ne tey comme ko faloon tey dina am moom tey ku gën a miin non xam moom bu toogee si ab seconde mën naa limal kilifa diine yëpp ku ko gën a miin kër kilifa diine xam nga amul amul tey bu ñu nekkoon kat dafa am diggante état ak kër kilifa diine yi ku si ne diggante buñ ci kii hmm. loolu moom sadri su boobaa ah. imam du saa buy fët boppam sax ah, mais dañu naan nag ku ci gën a jekk imam ah. Makhtar Gueye bu jàmm rek dëgg yàlla maîtrise na leen lool man daal émission bi <laughs> li ma ci amal solo wax naa leen ko macha allah président Ousmane Sonko suñu aajo ñun jàmm rek faj nga ko hmm. saagakat yi. Hmm. amuñu woon kenn benn leader de parti bu ciy wax. bu wax def leen daan arrangé. macha am na sax saagakat yoo xam ne ay leader dañ leen di neexal. Hmm. ne suway bu def na émission boo xam ne ah, man la attaqué demal nga dugg si ci ay ah. mu go mu jow ne live loolu am na fi man xam naa ay leader de parti yuy financé ay saagakat te jotewu leen dara waaw Sonko ñëw nag def la contraire hmm. ne ministre la justice ku fi saagati même bu bokkee Pastef duggal si caayam kon foog ñu félicité ko kon émission yi pour man daal loolu moo ci amal solo Assane looy tàggoo ginnaaw bi ñu gërëmee hmm. eh, Mame Makhtar Gueye bu Jamra hmm. kon defe naa li ñu fi solo te mbokk yi déglu nañ ko bu baax baax di fàttali ay ñaawteef yu bari yu amoon ci ay théâtre lu ci mel ni ay maîtresse d'un homme marié mm, ak infidèle yu bare baree bari ñoom ñii ñoo sol seen dàll ah, mm-hmm. xeex ko ndax man fu ñu tëddee su ma demee Touba damay jël sama téléphone doom ji mm-hmm. di xool mm-hmm. xool ci yenn site lay seetaan ak yu muy abonné loolu day même boo demee ci historique bi sax da ngay xam lan la seetaan da xam moo tax bu ma demee ci TikTok bi ku ma gis mu télécharge ko ku vulgaire Mm-hmm. dama koy damay bloqué kooku ci TikTok ba pare ne ko mm-hmm. ñii bu ko seetaanati ah, damay fexe ba bloqué site yi nga xam ni mm-hmm. parce que fii am na ci ay bu ko sa doom seetaanee rek lu mu loo liggéeyoon ci membre bi lay joxit di ko si félicité baax di wax ne xel daal na si ndax yaakaar naa ne internet bi li si ump son yi bu bëriwut waaye émission yi am si télé bi it li ko ci ëmp bëriwul mm-hmm. kon ñi nga xam ne ñooy nekk ci émission yi même ki nekk ci émission bi dagg mm-hmm. di wax wax ju doy waar mën na ko dagg takk maam maxtaar kii dencal ma maam maxtaar kii nangam kon na nañu gën a jubbantiwaat toogee nii daal te xam ne maam maxtaar li mu bëggal ak njabootam rek la ñu bëggal li mu bëggit mooy Sénégal gu jubbantiku kon nañ ko si jàppale ñun ñëpp rek fexe mm. Sénégal jubbantiku ñu ngi koy sant baa di ko gërëm jaajëf jërëjëf sëriñ Fallou Goumbala mbokk yéen ñi see toogoon di seetaan jërë ngeen jëf gërëm bu baax baax mbokk mi nga xam ni moo gunge woon ma Makhtar Gueye di Alhaaji Mbaye Gueye ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm ba ba léegi toogaay bi yàgg na waaye moom tamit mu ngi toog gërëm leen sant leen jox leen ab dikk ba suba ak jàmm incha allah ñu fi dalal euh, kii te mu demoon ci waa euh, euh, saar Sarr incha allah moom i tamit ci ci ngeen bokk asalaamaaleykum wa rahmatullah rahmatullahi wa barakaatu. Hmm, ci ngeen bokk dikkati na de. ndax Oustaz Alioune Sall ci émission bi la bokk. waaw ci laa bokk incha allah maa ngi bokk ci émission ci ngeen bokk di déglu ak suñu mbokk Iran Ndaw. émission bi mi man ci nga bokk Abdou Ndiaye. ci la Alpha Camara rajo Dunia RDV ànd ak yéen ci seen émission bi di ci ngeen bokk. nuy woo suñuy bokk ak seen bokk ñun ñëpp ñu ànd te ñëw bokk. man la Mamadou Lamine Bara Dieng bu Walf Fadjri maa ngi déglu émission ci ngeen bokk. ci laa bokk. man Babacar Sylla borom Islam wal Haya maa ngi déglu ci ngeen bokk ànd ak Souhaïbou Diop. man Boubacar Diallo soppey sëñ Souhaïbou Diop sëñ bu sopp naa la lool naw naa sa dal ak sa tey ak sa liggéey. DJ Boubs ci laa bokk. bokk yi émission ci ngeen bokk man Fallou Cissé ci laa bokk ndeke yoo comme neex nga bokk. man la ma maa ngi